man pool ndawul kirist yéesu ci coobareek yàlla man ak timote suñu mbokk noo leen di bind yéen gaay yàlla yu sell yi dëkk kolos te di ay mbokk ci gëm kirist ne leen yàlla sunu baay may yiw ak jàmm duñu noppee sant yàlla bàyyi suñu boroom yéesu kirist saa suñu leen di ñaanal ndaxte na nañu seen ngëm ci kirist yéesu ak seen mbëggeel ci gaay yàlla yépp ngëm googu ak mbëggeel googu nu ngi sosoo ci yaakaaru ëllëg ji cër bi leen yàlla dencal ca asamaan mas ngeen a dégg yaakaar jooju ci kàddu dëgg gi di xabaar bu baax bi ni xabaar bu baax bi wàcce ci yéen noonu lay wàcce ci àddina sépp di meññ te di law te noonu lay doxale ci yéen di dale ci bés bi ngeen dégge xabaaru yiwu yàlla wi te xam ko ci dëggam gi moo ngeen jànge ci epafaraas mi sunu nawle ci liggéey bi te nu sopp ko di jawriñu kirist bu takku ngir seen njariñ te moo nu yëgalit mbëggeel gi xelu yàlla mi sol ci yéen looloo tax ci suñu wàllu bopp ba nu ko yëgee ba tey jóguñu ci di leen ñaanal ñu ngi ñaan yàlla ngeen xam bu baax coobareem ci xel mu mat ak ràññee gu aju ci doole xelam noonu dingeen dund dund gu dëppook seen bokk ci borom bi ba neex ko ci fànn gu nekk di def bépp jëf bu baax te yokk seen xam-xam ci yàlla te yàlla dina leen dooleel ak bépp doole mu màngoo ak kàttanu ndamam ngir ngeen mën a tegoo coono te muñ ba fa muñ di yem dingeen gërëm yàlla baay bi ànd ci ak mbég moom mi leen jagleel ngeen bokk ci cër bi mu dencal gaayam yi sell yi ci leer gi yàlla musal nanu ci doole lëndëm gi yóbbu nu ci nguuru doomam ji mu bëgg moom mi nu jot maanaam baal nu sunuy bàkkaar doom jooju moo di melokaanu yàlla ji kenn gisul mooy taaw bi ki gëna a màgg lépp luy mbindeef ndaxte ci moom la yàlla sàkke lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf si li ñuy gis ak li ñu mënul a gis muy buur njiit kilifa mbaa boroom sañ lépp lu ñu sàkk ci moom lañu ko jaarale ci moom lañu ko jëme laata dara di am fekkan na moom mu nekk te lépp a ngi jàppoo ci moom mooy bopp biilif jëmm ji di mbooloom ñi ko gëm ndaxte moom mooy njaalbeen gi di taaw bi maanaam ki jëkk a dekki ngir muy kilifa ci bépp fànn ndaxte soob na yàlla mu dëkkal matam gépp ci moom te jaar ci moom jubale lépp ak boppam muy ci kaw asamaan yi mbaa ci suuf ba mu wàccee jàmm jaarale ko ci deret jituuru bi doom ji deeyee ca bant ba te yéen ñu sori woon yàlla te doon ay noonam ci seen xel ak seen jëf yu bon léegi nag yàlla jubale na leen ak boppam jaare ko ci deewu kirist ci yaramu nitam ngir taxawal leen ca kanamam ngeen sell te ñàkk sikk ak i ngàññ loolu nag na fekk ngeen wey ci ngëm samp ci ba dëgër ci tey seentu cër bi leen xabaar bu baax bi jox te xabaar bu baax boobu ngeen dégg te ñu yëgal waa àddina sépp man Pool moom laay yëgle léegi nag maa ngi am bànneex ci coono yi may daj ngir seen njariñ te li des sax ci fitnay Kirist noonu laa koy àggalee ngir njariñu mbooloom ñi gëm di jëmmam jëwriñu mbooloo moomu laa ndaxte yàlla sas na ma ngir yéen may yégle fu nekk kàddoom maanaam ma yégle kumpa gi nëbbu woon ay jamonoy jamono waaye léegi yàlla xamal na ko ay gaayam ci xeeti àddina sépp ñoom nag la yàlla bëgg a xamal ni ndamu kumpa googu màgge maanaam kirist ngi dëkk ci yéen di yaakaar ju wér ci ndamu ëllëg moom kirist lañuy yégale di artu di jàngal ku nekk ànd ak xel mu mat ngir jébbal yàlla ku nekk ni ku mat ci kirist ci loolu laay jëmale sama liggéey di bëree doole kirist ji yëngu ci man ak kàttan